ñakum xey ndaw yi nekk na lu ñu nemmeeku fii ci bët saalum réew mi ba tax na nemmeeku na ñu ñu bëri ci ñoom saa ñu pare seen formation dañuy am jafe-jafe pour am liggéey ñu bëri si ñoom ñuy def yeneen métier yi mel ni dawal Jakarta ngir saafara mbir boobule région bu Ziguinchor jot na bénéficié wu ci projet d'appui buy jublu ci wàllum insertion ndaw yi ñu nekk ci euh, monde rural. li ni mel nag taxoon ñu amal ab lël bu am solo fii ci bët saalum réew mi coordonnateur national Bob le projet delu siwaat ci solo si donc dafa don projet am dafa lu projet yi am il faut que projet yi ak service technique régionaux yi nga c'est mission régalienne fi donc projet bi ci dorté bi day teg tànku nuyo ëllëg tanki ne day tàggoo ji ëllëg donc loolu motax tax ñooñu ci liggéey bi depuis bañuy bind projet bi ba nañ koy dara doxale yépp ñoom seen ci biir lañu ñu nekk beneen particularité bi nekk na ne jigéen ñi surtout rawatina jigéen ñi gën wàllu xaalis bi gën wàllu liggéey bi ñoom ci la war a féete gouverneur adjoint bi nga xamante ne moo présidé boobule daje jot na rafetlu bu baax a baax li ni mel projet bi dafay dafay ñëw ci bi ñu seetloo ba pare xam ne xëy ndaw ñi dafa nekk problème ci àdduna bi yëpp rawatina fii ci Sénégal ñu gis ne ay ndaw yu bari dañuy jàng ba pare am seen lijaasa mais du ñu am xëy euh, fonction publique bi doon jël léegi mënatul mënul jël lépp euh, entreprise yi aussi mënuñ jël lépp